dal leen ak jàmm ñu xëy tàqañ yéenikaay xëyndoo tàmbali ko enquête yéenikaay ubbil yéenikaay bi yéenikaay bi xëy na ambassade ak consulat yi boo moytu nag ab yëngatu dëgg nag dina ci dal de am loolu nag ab xibaar boo xamante ni yéenikaay bi mu ngi ñu koy yégee nee nag du doon loo xamante lool ndax itam am na si ñu ngi yi ñoo ngi ko xaarandi ci ambassade ak consulat yi consul général bu Paris yéenikaay bi ne rakku Abdoulaye Daouda Diallo ba fa nekk nag fintoon yi daanaka fa mu toog si nen la toog ndax saa su ne mun nañ koo tëbal yéenikaay am na ay poste yu bëri yoo xaarandi ab opportunité moo di dëggam Ahmadou Ali Mbaye nee amul benn loo xamante ne si mu koy xëy ni ci ministère bi ngaloo naka conseil d'administration bi ba noppi di wax naka conseil d'administration boobee naka dina indi ab terrain d'entente maanaam ab xaatim déggoo boo xamante ne ñu ngi koy séq moo di

courage maanaam tekki ndombo tànk yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku les failles mesure yéeni cabinet moom itam dénoncé na ab rupture abusive boo xamante si ko dikkaat ci jililoo moomee nee ab limogeage boo xamante ni jaarul benn yoon ci yoon coordonnateur agropole nee na jililoo bi ko siq ak état bu Sénégal 2028 la war a jeex ministre bi nag proposé na ko ab poste conseil technique waaye dafa lànk ba tëddi suuf forcing dëgg nag la ñu def bu amal li nga xamante si moo di passation de service maanaam nag yéeni kaay bi nee ab jaay doole nag moo bëgg am ci lu bëri ngir rek fexe ba ndombo tànk yi ñu jox ko ñi nga xamante si ñoo di seeni jege ñaale boobee jamono grand panel jikkaat ci lu doy waat loxo ñu teg loxo ci Dakar Presse dikkaat na naka ci port autonome Dakar ak la xew yéenekaay bi ne na gën caa tuuti juróom-ñaar téeméeri ñoo xamante si ay liggéeykat lañu ñoo ngi si teggu na ci dëgg tribune yéenekaay ni teggu ci dëggay mooy nomination yi nga xamante si nouveau régime bi amal nañ ko yéenekaay bi ne rupture bañ doon woote nag loolee daanaka daanaka ba ñu xoolee amul ci de ndax mbirum mbokkoo dëgg moo fi am njaboot dëngu mag jël leen takkal ay ndombo tànk gestion boobee nag gars yi ñaaw lañ ko bu baax a baax Serigne Gueye Diop ministre bi yore wàllum jënd ak njaay cabinet booy xool nag njobootam kese moo la gën a bëri l'observateur ci nomination boobee nag la dal xëyaat nee na malaise am na ci implication famille waaye itam wàllum gestion yi nga xamante si nemmeeku nañ ko ci wàllum yornu réew mi reniement ak ses conséquences jeexital yi nga xamante ne si am na ko le cas Boucar Diouf médecin après la mort la ko yéenekaay bi tuddee histoire des familles au cœur naka des différents régimes daanaka régime bu ne daanaka coowal mbokkoo coowal njaboot da ciy dal dee juddu réew chaque jour ak dossier bu bees ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg